asalaamaaleykum mbokk yi ñooy seetaan am mbégte ak kontaante dalu si waat ak yéen ci seen beneen programme yi waañ bi comme niñ ko baaxoo di def rek dimas bu jot ak ci temps bi nii rek ngeen ànd ak seen xarit seen soppi di di Lady Kankou madame Diagne di kontaan ci yéen su ne rek fu waaye munti nekk rek ñëwaat neen waat a comme niñ koy baaxoo di def nee naa leen toog leen ngeen yore seen pen wala seen a paper ngeen daal di bindal lépp li nga xamante ne rek dañ koo fas yéene tooga tey ci biir waañ bi ba na rek ñu ngi fi nga xamante ne muy Pokoloko Pokoloko fi nga xamante ne mooy euh, duplex euh, duplex junction foofu la Poco Loco nekk mag yi xam nañ fi xale xam nañ fii ni ba tey na rek mbokk yi dañuy duggaat ci biir waañ bi tey ñu xool tey waa Poco Loco li ñuy amal bala may dugg ci biir waañ bi di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Abib euh, borom Abib Scoutir moo jaar si outfit bi jërëjëf Abib foofu ca Churchill's Town di leen jaajëfal bu baax a baax léegi nag li ñuy def rek mooy ngeen topp ma ñu dem dugg ci biir waañ bi ñu xool lan la amal ci biir waañ Ah, su ko defee rek mbokk yi ñu dugg ci biir waañ bi ah, comme ni ma leen ko waxee rek ah, ñu ngi fi nga xamante ne muy Pokoloko ñëwaat nañ fii nii ñu ñëw fekk ki nga xamante ne moom tamit macha allah ku xarañ la ci li muy def. gis ngeen rek taabul bi gis ngeen nu mu rafetee ku gis taabul bi rek xam nga ne tey moom li ñoo togg ci biir waañ bi dafa nara ne ma bàyyi la rek nga nuyoo. <laughs> asalaamaaleykum waa Ciw TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ak sa tur sa sant. ak Gambian si euh tay ñu fekk la si bir wañ bi tay lo ñu fas yéene toogal tey. tay dama leen lama yéene toogal ama uh, grill chof grill chof lool dafa wara a dé de. Ah. <laughs> koy uh, with fried rice. fried rice. yeah. okay lool amna solo uh, loolu nak so koy tooga lan nak lan nga need pour toga li di grill chof bi. wa grill chof bi lo fa need mooy ne. Pour seasoning leafing bi coof bi danga nit need salt and pepper nga am oyster sauce wala soo amut oyster sauce sax da use saf-safali soo amut light soya sauce wala oyster sauce mun ngaa use saf-safali mm-hmm. like yoo fa bugga rek ak lan and then olive oil also ok ak lan that's all I need for loolu laa bugga pour ama loolu laa use pour marinate ama jën bi mm-hmm. waaw from there nga am sa salade tomate kakumba eh, boobu mooy dem si salade bi carotte bi boobu da nga koo ak green pepper bi ak onion bi and sweet corn pour fried rice. fried bi and ok gis naa nga teg eh, salade bi tamit xanaa maa nit ñi dañ dee boole maalo ak salade. waaw ñun comme salade dañ ko fa def comme side place bi because am na ñoo xamante ne dañ dee bugg a lekk maalo ak salade bi tamit. Ah, tey moom eh, tey gis leneen waat. ndax uh, uh, toogay moom everyday mun ngaa jàng different uh, type of tooga du du du doy ba tax na rek waañ bi loolu ñu tax a jóg wan nit ñi lépp li nga xamante ne muy tooga nit ñi naka la ñu ko war a toogee ba tax na gis naa tamit jën boo xam ne tamit jën bu bu neex la te mu ngi si marché yi fii nii foo dem si marché di nga ko gis jën bi xanaa moo tudda coof coof waaw jën bi lu tax nga choose lii di coof bi wala sooy toogal lii di ah, grille coof bi coof rek nga woon a use wala mun ngaa use beneen jën mun ngaa use beneen jën waaw jën boo feel like boobu dafaa nekk grill ah, eh, red snapper la oh. <laughs> wala grill butterfish sax ok ok waaye yow coof bi nga si tàmm daal ok léegi naka la waat sax ji jiba mun nañoo tàmbali li nga xamante ni mooy tooga bi fooy dooree maa dooree mooy dama defar suma marination bi suma paree slice suma jën bi. du lifin ko fa. lifin ko si kawam yee. léegi ma bàyyi la nga slice jën bi. slice bi tamit dafa war a sew wala wala dafa war a em wala di jë. waaw dafa dipel noo ko buggee rek. ni nga ko def soo ko defee mu sew tamit. am na ñoo xamante ne suñ koo lekka mun na leen a sonal because luñ koo lekkee la. waaw zwei. ok gannaaw bi nga slice waat ñu ñëw Eh, eh léegi marination bi laay ñëw. mix ko mix ko ok ak jën bi. ak jën bi waaw ok. boobu xorom la xorom la waaw. waaw nit ñi xam ne eh, comme xorom moom. jën moom soo toga tooga foog nga xorom ko waaw mooy génnee cafka bi daal léegi <laughs> léegi ma use lime lime bi lime bi lan moo nga uh, use lime lime bi tamit daf dee mun a te si jën bi plus ama lu fi ni bi seen bi wala mu gën clean ok mu gën clean ok fine ma use olive oil olive bi tamit waaw ci kanam tuuti dinañ xam lu mooy def jën bi ne def ko fry wala def ko grill lii vinaigre la. oh vinaigre. waaye def nga limon. limon dafa foro te vinaigre dafa foro. waaw xam nga soo mixé vinaigre ak limon daf la day jox beneen flavor tamit. waaw <laughs> xam naa leneen baax na daal. kon try leen ko si kër yi ngeen xool lu muy saf ah, am na solo. lah power yeah. Oke. okay. power tamit lu am solo la si sooy si seen jën wala ndawal iya. ok lii kaani la kaani ok des na si nit ki nu mu ko buggee nu ko buggee waaw pare dama ko mix season bi ngeen koo dugal waaw exact li ma war naa saf de hmm maa ngi tàqante ko sama te pare waaw defare ma defaree lifin bi pare seasoning ba pare. Mhm. dama ko bàyyigu ma coppaale. vegetable si ok pour ama fry rice fry rice bi aw jola yee njaa joola yee waaw loolu la kay am nga jola moom dafa xam jën xam jën ni nga koy mariné gis nga nu mixé limon bi ah, ah amite kati yi waay léegi nañ ko may mu res boo njëkkee si carotte bi carotte bi ok maanaam fry rice bi mooy am euh, vegetables waaw mooy am vegetable bi carotte bi ak liñoŋ bi yooyu pare na léegi damaa yokkaale suma grill bi pour mu tànga danga soo ko tegee si grill bi du bi ko su xalee séeréer teg jën bi si kawam rek jën bi dafa sticky soo bi dafa mun a jéena soo jën bi dafa ñaaw dafa ñaaw waaw te moom bëgguñ mu ñaaw moom wax dëgg yàlla <laughs> tegalé frying pan bi. frying pan bi boobu pour. pour fry rice fry rice bi. ala fa melni malo bi dang ko toga already. wa malo bi dang ko toga already. def diw fofu nonu so from there ma tek jeun bi diw bi tamit of koo pour bom sticky tamit. sha allah. Um, uh, bi nga grillé ñu ngay grill di jën bi Eh, tal nga gaz bi tamit tek ci eh, frying pan eh, léegi loy def. léegi dama har may frying pan bi mu tanga so from there ma jël olive oil def fa touti bo tam su tangé touti ma dor fa def vegetable bi ma sauté ko def fa suma sisi tamit from there ma ñow def ko malo bi ok léegi mu na la bay nga def yoy nonu frying pan bi tanga na. wa dama melni mu tanga na dama fa ñow def li olive oil bi. ok. videoyo mga Yoko Tuti. Because from there, Mamaya ko Tuti, okay. tanga wa. Wala tanga dal. So legi dam fa ñoo def vegetable bi. Okay. Oyster sauce. and light shell sauce. dama talat beneen frying pan pour grill fa fry fa egg bi pour fry egg bi mom tamit dafa wara dem ci comme fry rice bi tamit léegi jën bi dama ko ñëw ton pour benen side bi tamit mu mun grill mu mun a grill okay ñu hol side bobu nu mel frying pan bi tàng na dama faa def tuuti ma fry egg bi egg bi fu mu jëm. fry rice waaw. <laughs> fry bi lay nek egg bi la nek di fry ni so dama ko fry ba pare dama ko dok into dice ba pare ma def ko ci vegetable bi dama sauté na le so legi fry na egg bi ba pare dama ko ñew sauté ci vegetable bi dama sauté mbokk yi ba rek yi naa ngay seetaan seen programme yi waañ bi fii ci QTV ah, gis ngeen rek ah, kii di eh, jiba lim def si li nga xamante ne mooy fried rice bi ah, prepare na fried bi fu mu ne nii jeex na taag léegi nag jën bi yaakaar naa ne tamit grill na léegi dañ ko ñëw génne dugal ko ci oven bi léegi ma bàyyi la nga génne jën bi yaakaar naa ne li ci des bareetut a jiba waaw li ci des moom bareetut hmm, léegi léegi am um, how many minutes la moo def si um, microwave. yéen mu nekk nii right now less than four minutes rek. less than four minutes léegi dañoo wax xam two minutes daal. marinaison bu ma ko dugaloon boobu laa jël tuural ko si kawam waaw moo dugal koo dugal si microwave. ok loolu su ma ko dugalee noonu jën bi dafa woo. Oh, waaye lii soo ko fa defee jën bi dafaa ñor te du wow tamit. ok def ko fi tam koo gën a dugal tamit. Mm-hmm. <laughs> léegi ma bàyyi la nga dem dugal ko ci euh, microwave bi ah? léegi nag euh, mbokk yi gannaaw bu ñuy euh, dugalee suñu jën bi si biir oven bi gis ngeen rek euh, jën bi nu mujjee mel gis ngeen nice na ah jiba wan naa leen joolaa moom jën moom bàyyi leen ko seen seen seen doole la daal ok léegi nag ma bàyyi la rek ma xool ni ngay tegee jën bi ak maalo bi ci kaw table ci kaw palaat bi. maa njëkk scoop rice bi. scoop luy scoop. mooy da ko def si bool bi. may ko shape waaw ah, may ko shape waaw. waaw. soo soo kiwee sa bi ba pare. Mhm. Eh, rice bi jël jën bi teg ko si plate bi. Mm, ni ko tegee rafet na de. laa yi léegi daal ni ngay toroxalee jën. <laughs> xoolal ji waaw bi ban dressing la salad dressing salad dressing Manam, lan nga ci bol def mayonnaise la mustard ak vinegar, wa ak some brown soup xoolal li. Ah, mbokk yi am na lii di ah, grill coof ci kaw taabul bi ah, mu boole ko ak lii di fried rice gis ngeen rek a salade bi tamit nu mu ko tegee asay dina neexal lekka comme nu ma la laajoon si jëlbeen bi ma ne la salade ak maalo waaye bii moom dina neexal lekka ma wax dëgg yàlla ah jiba jiba tooga nga man joolaay dama foogoon ne pempeng rek ngeen mun di wala kaldu man ndeke joolaay lii dañ ko dee tooga ah waay waay waay bés ni ki tey ah këri joolaa laay dem léegi dem <laughs> lekki boobu ah, léegi eh, jiba ah, looy tàggatoo ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan ak kan ak kan nga ci yeekal nag <laughs> maa ngi gërëm waa Ciw TV waaw kontaan naa trop ci seen liggéey bi waaw if it nekkul bi sax waa every time man dama dee seetaan Ciw TV am so happy you so every time tooga yu ndee jënee tamit man dana ma dee toog ma waaw man moom kañ la ñoo ñëw si man ah, and I'm so happy so <laughs> yeah and then tooga bi moom <laughs> special la pour suma famille bi rek famille bi rek <laughs> am nga jabar non amoo jabar baax la may jabar QTV dégg nga dañ fa bari ay célibataire yaa uli utal naa la dégg nga thank you sama much ñoom ñu lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi fii la ñuy am ci uh, tooga bi waaye jeexagut de xam ngeen rek comme ni ñu ma koy baaxoo di def rek tey tamit dina am guest boo xam ne mooy mos tey moom waa seen laa ko jagleel li ñuy def rek ñu dem xool kan mooy suñu ges bi ñu amaa amaama waxtaan su ko defee mu mos wax ñu rek li muy saf. Ah, kon mbokk yi gannaaw bu ñu ba pare rek ah, comme nu ma leen ko waxee rek dañ am gan ci biir kër gi ah, ñëpp xam nañ ko rawatina ci radio bi waaye moom dina introduce boppam gën ñoo wax moom mooy kan ndax tey nee naa leen waa Qcell laa jagleel waañ bi ku ko gis sax jaru nga <laughs> laajte la fu muy liggéey bari ñu ngi lay dalal. <laughs> jërëjëf Lady Kanku maa ngi la nuyu di la sant di la gërëm si invitation bi. Euh, comme ni nga ko waxee rek maa ngi tudd du bari maa ngi liggéey QCell si corporate sales am um, department bi um, responsible for corporate CUG um, foofu lay liggéey am na léegi ñaari attaque lu teg. ñaari at uh, ok uh, gannaaw bi nga waxee loolu suñu nit ñi bëgg a xam bari mun nga ñëw rek kan mooy bari waaw bari di Gambian bari di Pël Barry juddoo ci réew mi màggee ci réew mi naa Serekunda Lonankona. wax dëgg neex yàlla ma demee fi school jàngee fi def fi lu bari wax dëgg yàlla ci wàllum liggéey xaw ma fenn fu dul fii wax dëgg yàlla yàlla dimbale na nag ma xam Gambia be Gambia daj diggante Kartong ba na e, ndig dem naa posting si dëkk yi yëpp maanaam Gambia moom jaaxaluma wax dëgg neex yàlla te def naa attachment tuuti tamit Sénégal dem naa fa training tuuti man may Momodou Barry ci mm. gàttal. dégg naa Barry ku bëgg a la moo tax tey bi. waaw juumuloo <laughs> juumuloo wax dëgg neex yàlla bëgg naa lekka lool mhm. yette bari surtout ma ñi sant bari sax dañ bëgg a lekka noonu lañ ragalee or tamit te gis naa ne weeru koor baa ngee ñëw ah, kon yow li nga def nii tey eh, dafa tax ma dinca ko ba weeru koor bi lii dina ma mën a téye weeru ko bi yaakaar naa. Ah, déedéet déedéet <laughs> eh, comme bari kontaan naa trop ah, pour invite la fii ci ah, programme yi waañ bi xam ngeen rek waañ bi li ñuy tax a jóg rek mooy wan nit ñi lépp li nga xamante ne mooy tooga tey nag dinañ waxtaane li nga xamante ne mooy waañ bi parce que programme bi loolu la bari soo mënee soo yow sooy describe waañ bi yow lan mooy meaning of waañ. waañ mooy fii doomi aadama war toggee dundaam um, li ma war a lekka um, fu mu ko war a defaree um, moo tudda waañ maanaam bu njëkka ba xamoon nañ waañ ci biti suñ mag yi noonu maam yi loolu lañ xamoon def seen waañ ci biti di toggee foofu noonu waaye jamono dox na ba waañ nekk na si biir néeg ba ñun ñoo waañ ñoo dëkk fu mu nekk nii waañ ci gàttal daal mooy fi nit di toggee mhm. lekkaam dugal ko ci biiram bi mhm. foofu loolooy waañ te yaakaar naa góor ñi dañoo togga jigéen ñi dañoo togga mhm. te dañoo togga lu mhm. kon waañ am na solo si dundinu doomi aadama mhm. ehm, maanaam lekka soo déggee soo déggee waañ rek xalaat nga lekka kon ehm, niñ ko tegee nii lii xam nga ne ci waañ laa mun a jógee li mun ta jógee fen kon lii am na solo si dundi aadama lekka dafa am solo si ni aadama loolu moo tax waañ am ndik boor bu set dinañ togga waaye bari yow ah, as góor xam nga ne góor mom legi léegi moom góor yaa ngay dugg ñu ngay mhm. yow euh, as góor mhm. yow lan nga am pour wax euh, ci li nga xamante ne mooy lekka bu ne rawatina yow nga am sa jabar ndax sa jabar daf la lay tegal loo xam ne daf laa neex mu ne waaw waaw wax dëgg neex yàlla daf maa tegal lu neex dafa lu neex ndik xam na ne man dama bugg lekka te xam na ne duma suma biir leena amna ak jabar bu mu don, di doon ak suma bos euh, sa jëkkër waruloo foyee biiram ndig bir dafa am solo ni am solo noonu la jabar am solo ci kër ndig kookoo laa toppatoo kookoo laa jox nga kon leka am solo man nag su ma soxna wax dëgg neex yàlla ku mun a te ku sawar toogal. mun a toogal lan la gën a mun a man dama nekk pul. Mhm. Euh, li ma gën a ci tooga mooy oh, poté wala hako ñaambi hako poté laa gën a bugg. <laughs> ok wax dëgg neex yàlla samedi bu nekk. Mhm. daf ma jox man nag loolu nag naka jekka euh, liñ jën a dunda yëpp ci sëy samedi bu nekk duñ duñ manqué lii loolu daal bis boo xam ne dafa dafa stable soo ñëwee suma kër moom loolu rek nga faa fekk samedi waaw mun naa mun naa mun naa tooga li nga xam ni yomba na pour tooga mbaa du omelette <laughs> waaw waxatu bi te xam nga pour dafa bëgg a omle suñ <laughs> demee ci tànganaay dañoo dem dañoo omle ba mu baax especially euh, diw bi diw bi waaw diw bi ak ma defal na ak ma defal la li <laughs> ñoom léegi euh, bari mhm. dañoo ñori ñu barkeellu waaw ñu xool ñu seet ñu seet suñ tooga bi waaw dañoo ah, ah. man nag dama bëgg jën nag ma nag bëgg naa jën trop ba tey rek seen programme yi waañ bi la fii ci QTV ñu ngi fii ci Pokoloko mbokk yi gannaaw bu ñu lekkee ba pare ah ma ñëwaat rek a delluwaat si ki nga xamante ne mooy bari bari mbaa tey ndeewu nga. waaw naanoon naa tii rek dégg euh, yaakamti Ah. waañ bi yaakamti woon añ bi. Uh-huh. Eh, moo tax ndéewuma woon loolu. wane nga ko de <laughs> nee leen puli leer rek lekk rek la def wax dëgg neex yàlla xamoon naa ne nag doñ ma disappoint waañ bi mm-hmm. waaw dégg noo <clears throat> gisee seen lekk yi tamit. lekk bi neex na dañ ma jot a tegal nii di coof. coof grill. coof grill. coof grill daal coof grill na. Mm-hmm. coofe na de coofe na moom wax dëgg neex yàlla jën bi neex na am na test. amna gu goût na suma prof bi te tok na suma bir bi <laughs> neex na trop waaye wax dëgg yàlla. Eh, gëna bu nga waxe si jën bi malo bi nak moy fried rice bi fried rice bi tamit wax dëgg ñor na. te gis na mu ànd ak yu bari du ma fi nekk di lim den si boba ñu tuddé mako dama bay non rek waye wax dëgg neex yalla ñor na te lim andal tam bari na gis naa ci gis naa ci omelette sax ci biiram suma xarit <laughs> waaw gis naa ci mboxa tamit waaw ehm, mu wax dëgg neex yàlla neex na moom waaw mix na ko ba mu baax moom mhm. ehm, ah wax dëgg neex yàlla bii moom mhm. lekkaaguma ko de ma waxee ko noonu waaw bii moom lekkaaguma ko waaye lekk naa lu utee lii tamit lu ko daaxa ah ah. <laughs> ndaw si dafa toogalu neex di. ah kay ndaw si dafa toogalu neex. waaw di du du moromi len du moromi len <laughs> waaw léegi bi ñu ko doon lekk a ah, bari ban ah, cafka nga ci gën a jiiru parce que ah, toogi kër yi mm-hmm. am na yeneen cafka yoo xam ne dafa dee saf waaye bii nii ban cafka nga ci jël boo xam ne man nag kanku ni maa gis nii lekk bu foroxut amut <laughs> amul kaani man pour man jàll na neex na waaw am na guu bu war a am man bu mu forox man bu mu an kaane rek waaw bu si li rek uh-huh. man lekka bi daal jox na ma guub bi ma bëgg te kontaan naa <laughs> ok a uh, uh, Barry loolu am na solo lool uh, mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi am fii kii di Barry nekk Qcell Sales léegi nak dina la baye rek eh, nga tagoto ak lo am pour wax waa Qcell si wa Qcell tamit di gërëm di gërëm wa Qcell bu baax di len sant si opportunité bi ak chance bi ak liggéey bu rafet bi ñoo def ci dëkk bi euh duma lim ken, waye ci kaw bi ci suuf nga ca ngàllaamal la ñoom ñëpp wax dëgg neex yalla fiñ japp fofu la fiñ ñu fofu la euh mbir nak suy dem mm. dang nga japp so ci jàppul mu dem bo ci jappé mu dem kon da nga japp mu dem loolu loolay seel maa ngi au Gambien ci ñëpp nañ jàppa ci Qcell seen bos la nañ ci jàppa mu dem euh, lii doonatu caaxaan léegi ku am ku am fukki at ak fukki at ñaar ci liggéey bu xarañ bi te dawut delluwut gannaaw fi mu teg tànkaam mu ngi ko gën a accéléré kon na Gambien si yëpp jàppa ci Qcell te incha allah te loolu laa nekk di gis te Gambien sañ cee jàppa ci fànn bi maa yëngatu ñaari fànn yi maa yëngatu yëpp ci Qcell mm-hmm. gis naa ne Gambien sañ ci jàppa bu baax a baax a baax a te loolu la ñoo ñaan di nuyu ñëpp nag ci kaw bi ci suuf ñi ko moom ak ñi faa liggéey ak suma ay boos ak suma ay xarit ak suma ay kowook ak euh, ñëpp di nuyu suñu ay cameraman di la nuyu yow kanku ci berndeel bii neex na trop wax diga neex yàlla di nuyu suma jabar di nuyu suma ay mbokka ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi fa te jàppama euh, te am yaakaar ci man te yónni ma te yàkkamti ma te incha allah dinaa waaxu bi agsi si ñoom nañ ma xaar rek. <laughs> jërëjëf bari loolu am na solo jërëgin jëf mbokk yi képp koo xam ne rek ay jëloon nga sa time di seetaan programme yi waañ bi maa ngi leen a gërëm di leen sant bu baax a baax kontaan ci yéen lu bëree bari waaye di kenn du ñi nga xamante ne ñoom lay àndal saa su ne rek nee na leen ñoom du ñu bàyyi dara yëpp la ñuy wane ku ci mel ni rek Abdou Cissé maa ngi koy jaajëfal Aliou Diallo jërëjëf Diallo jëri jërëjëf kii di Sehu Manka maa ngi koy jaajëfal bu baax. waaye di gërëm bu baax waa Pokoloo ko tamit kontaan ci yéen euh, ku bugg a façon euh, toogay rek mun ngeen naa ñëw fii ngeen relax fii am façon toogay fii ci euh, Pokoloo ko waaye kenn du suma ñawkat bi Habib Loum borom Habib Couture Habib jëf ci ñaw bi maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm Gambien si rek yëpp di la jaajëfal seen xarit seen soppi la woon Lady Kankou ba beneen dimanche incha allah si beneen programme yi waañ bi nee naa fees ñu yendoo jaama ba baay